am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne suñu borom may ko kàttan ko wér ba lépp mu mottali ko nu kawe jortam ñuy nuyu mboolem kilifa yu fi fi teew yépp ni ko ñuy nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ñépp di ay kilifa di ay boroomi xam-xam rawatina nag ki nga xam ne moo fi teewal. njiitu réew mi di Sayid Mouhamadou Abdoul Aziz te ministère bi yor wàllu islam teewal ko fi ñu koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm ci teewaay bi ndax xam nañ ne xat na ci moom di ko yóbbante cant ak ngërëm Abdoul Aziz ci kóllëre ak bokk gi nga xam ne dox na diggam ak njabootu Serigne ak xam gi mu xam sëriñtuwaa Touba li doon ci réew mi ak bëgg gi mu leen bëggoon ak li mu fi am mu jàpp kóllëre gi di ko doxal waxtu ne muy yónni ay délégation yu mag ci ki fi nekk Serigne Touba de sàkku ci moom ñaan di ko dénk senegal di ko dénk Mauritanie waxtu wu ñu fi dikkee itam lépp loo xam ne taxawaay la boo xam ne war na ko ci mi ngi koy def kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom gën koo dimbale kàttanal ko ba li nga xam ne tàmbali na ko ci réew mi ci liggéey bu baax boo xam ne ñëpp teg nañ seen bët mu mottali ko ci jàmm. di nuyu itam ambassadeur Moustapha Tall moom mi nga xam ne moo fi teewal président de la république Macky Sall nekkal fi réewum Sénégal taxaw fi ñaari tànk ndax mooy ambassadeur bi waaye itam ñëpp xam nañ taalibe gi mu doon ndax mi ngi bokk ci njabootu Serigne Cheikh Gaïndé Fatma loolu itam nag mi ngi koy wane waxtu ne ba mu fi ñëwee ba léegi. lépp loo xam ne war na ko ci suñ dikk gi ci taxawaay ak yitte ju ma sëkk ju desul fenn ngir xam ne réewum loo koy defal waaye xam ne ab taalibe buy jëf la moom itam kon ñu ngi koy sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñu koy ñaanal suñu borom mu dimbale ko moo itam kàttanal ko ba mission bi ñu ko indee ci réew mi te gis nañ ne lim ci man lépp mi ngi ko ci def yàlla gën ko ci dimbale defal ko ci tawféex di ko sant itam ci ndaje mi ndax lépp loo xam ne moo ko ci waroon def na ko ci taxawaay disul dara kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko yóbbante ci moroomi ambassadeur yi nga xam ne teew nañ fi rawatina ambassadeur bu Arabie Saoudite ak Arabie ambassadeur bu Maroc ambassadeur bu Soudan ak ki fi teewal réewum Palestine ak ñi fi teewal ambassadeur Gambie ak. ki fi teewal Algérie yépp limoon nañ ko kon ni ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxe woon léegi ci langue française rek laa koy tënkewaat ci wolof ndax fii ci Mauritanie ñépp xam nañ sëriñ Touba li taxoon ñu indi ko fi illa ja jërul dellusiwaat ndax wax nañ ko ndax dafa wax ne man zanna sayri rib aami ak sasi mithla masiri rasa aami jaysati sabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam lam yaku sayru aksasin siwa jasa man li qaada baadu waadu na jasa kon loolu dafa ñëwoon ngir wax ne mboolem li desoon ci lu baax ci kaw suuf suñu borom dafa xotti suuf si dóor ko ci biir ngir mu ñëw jëlsi ko kon nag képp koo xam ne ñëw nga fi suñ borom defal la tawféex nga bokk ci njabootu Sëriñ Tuubaa war ngay xeeñtu la te xam ne ba mu agsee la ko Cheikh Sidi Baba njëkk wax rek acheikhu ahmadu nicmatun awlaha haasi alxalaaiqa kullaha mawlaha nee na Sëriñ Tuubaa xéewal la gu suñ borom wàcceel àdduna sépp bu ko yóbboo Sénégal mu doon seenu xéewal bu ko yóbboo Mauritanie mu doon seenu xéewal kon nag bu yàlla dogalee mu dem ba ñaari réew yi li nga xam ne moom la àdduna sépp bëgg muy pétrole gaz mu boole ko seen diggante kon loolu lenn la ci meññanti liggéeyu Sëriñ Tuubaa kon nag yàlla ci suñ boo def barke bañ ñi fi dëkk ñëpp jariñoo ko te lépp loo xam ne du jur jàmm wala fitna bañ ci am jeexale ko rek ci bayit wi nga xam ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ko ñoo xam ne ñëpp tàbbi nañ ci biir inna allazina ila sarsara qad qasadu ziyaarati faaraxu daarini aw saara néew na képp koo xam ne bàyyi ko nga fa nga nekk fekk fii ma fekk si ma fii ci Sarsara siyaare si ma suñu borom tàggaleen la ak say bàkkaar adduna ak alaxira Cheikh Abdou Lahad nag waxoon na ne fa ko Serigne Touba waxe woon ba fii mu ne ku ko siyaareete ku ne garaat booba dana tàbbi ci yow kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba suñu borom mottali ay yéeneem.